suba fas yéene na débale ginnaaw gi nga xam ne booba tey nee neen fekk nañ fi état de ruine fekk nañ fi état goo xam ne du dara lu jëm si xaalis askan wi ne leen bu nekkee loolee amul pourquoi ngeen bëgg a organiser tey nag askan wi war a xam suba lan may xew boo déggee le premier ministre wala gouvernement bi ne suba war nañoo waxtaanee lii nar a xew nguur gi fi nekkoon ni ñu yoree réew mi ndax yaakaar nga ne war nañ laa wax lenn loo xam ne yaakaar nga ne ñooñi defuñu ko woon. mais forcément parce que lolo nek objectif ou communication bi xam nga y tout à l'heure état en ruine mhm. le premier ministre Joton na def euh, déclaration Bobu né anam gi nga xamné mom lañu la euh, sur le plan euh, économique sur le plan financier nek na anam go xamné Budget bu jéggi dayo la hein, ba utiliser le terme exactement de nous avons trouvé un pays en ruine Hmm. Bah, les gens s'étaient interrogés sur le fait que est-ce que le Premier ministre Khamnazar lui sax pays en ruine. Hmm. effectivement peut-être que faudrait euh, évaluer Dayobinga bi nga xam ne fa la bi nga xam ne si la ñu fekk réew mi sur le sur le plan économique ba ay ay ay ay ay ay ay aspects yu bëri daal di koy wane ah sur le plan économique avec le FMI bi nga xam ne am na benn mission boo xam ne jotoon na ko fi envoyé euh, FMI ci boppam. Mm-hmm. at en baisse le la croissance euh, notamment au premier trimestre hein, parce que premier trimestre bi da ngay gis ne engagé ou en fait la gouvernance du régime actuel. Hmm. donc l'olobo bo amee da ngay effectivement am founou, situé déjà li nga moi ne entraîné ji situation bi ñu toll te dafay nek à la seule tête de de du régime euh, sortant. Hmm. donc le premier ministre. Euh, communication bi nga xamné war nañ ko def bu en fait dañuy ñëw pour faire l'état des lieux. Hmm. L'état des lieux euh, concernant particulièrement euh, la situation actuelle parce que euh, waxoon nañ ko fi euh, benen bi aussi moy département ministériel bu ci né ndekété ministre bu né lañ ko dénkon ci département am. Mhm. da ngay gis né amna ay ay ay ay ay ay il y a des défaillances par mhm. rapport à la gouvernance euh, concernant ce département ministériel mais de manière générale euh, par rapport à la gouvernance euh, bi nga a ne ci fait lañ ko fekk également dès le début de la gouvernance du président Bassirou Diomaye Faye mhm. ñu a réew amul mhm. mais avec les partenaires techniques et financiers il naka la un stabiliser mais également les mesures que nga le premier ministre le président de la république son premier ministre et le gouvernement mettre en œuvre en termes de rationalisation des dépenses de l'État mhm. euh, ak yenn yi nga certains ont considéré que c'était des détails le premier ministre dans les bureaux ay euh, li nga des machines à café Il ko fa euh, dépenses. rationaliser les dépenses rationaliser les dépenses parce que vous faites que nga un nga bureau bu dans une administration bureau bu nek am sa ben imprimante mais euh, il est vrai bo bo xolé sax quand on était en radio, dama lay jox ben exemple. Mhm. ñun biñu nek en en radio euh, journaliste reporter bu vous bu féké dafa dem dafa ji reportage am. Mhm. ñeu def sa montage. en fait da ngay envoyer euh, ton élément ci ben adresse email mail xamné mo centraliser en fait li nga xam moy mooy yi. Mhm. te centralisation boobu mu ngi nekk au niveau du studio de diffusion. Mhm. donc lepp fa la ku nekkay defar après envoyé fofu bu ko defee ñu dajalé mbir yi fofu de la même manière bu fekkee né am nañ par exemple ben, espace public. au mhm. sein de euh, du bureau de l'administration. Euh, les éléments euh, ou les agents on nañu retrouver wu foofu wara def mm. mais de la même manière imprimante bi nga au secrétariat parce que secrétaire il est chargé également de la gestion de certains dossiers si moom lay jaar pour mm. transmettre au directeur ou aux différents départements au sein de l'administration donc là, en fait on ne peut voir que une bonne intention euh, par rapport à li nga xam moy mom lañu bëgg def pour euh, stabiliser la la situation donc de manière générale euh, c'est un peu la description de la situation avant ñu dugg ci mbir yi bu suba. Mhm. donc japp naa effectivement dinañ am lo xam ne dinañ ko mettre sur la sur la dent sur la dent des des des Sénégalais. bon jërëjëf xam naa ne <laughs> dinaa fi joxe xalaat bu ndaw. oui xam nga né bu ñu déggé né Ousmane Sonko. Mhm. débal. Mm-hmm. moo di euh, am na ñoo xam ne dañ leen joxoon réew. bu ñu leen joxee réew euh, ñoom ñu woote Sénégal émergence. Mm-hmm. Euh, boobu ak tey askan wi di Sénégal jàpp ne. réew mi waroon naa dépassé fii. ci mm-hmm. li nga xam ne mooy loolu lañu def tey nag ni ma koy waxee. dafa am foo xam ne fa la réew mi toll fañ ko mm-hmm. jëlee cinquante quatre pour cent li tax ñu voté da see bokkoon leen mooy mm-hmm. ndax dinañ toll si réew moo xam ne buñ ci yeggee askan wi dinañ leen delloo la moom waaye ndax ñi ñuy fal bu ñu xoolee dëgg-dëgg ñoom ñoo ñi dinañ gis seen bopp si réew mi mm-hmm. mais boo xoolee sous l'ère de Macky Sall bi ñu leen dénkee ba fi nga xam ne foofu la ñu yegg si leen ngay seetlu ne jëriñu ñu askan wi dañoo jëriñoo Macky Sall mooy yëkkati woon ay kàddu nañu dina def de telle sorte que mooy askan wi kenn ku ne gis boppam si réew mi hmm. waaye nag kenn ku nekk aussi gis boppam si li nga xam ne noonu la yoree anum réew mi man damaa jàpp ne euh, déballage Sénégal pour tous waaw ah, tey damaa jàpp ne déballage bi ñu jëm yëpp hmm. wax ji fu muy mun ci jëm ci Macky Sall lay ñëwaat hmm. ji nga mënuñoo nekk si réew njiitum réew ne yéen ñi nga xam ne yéen ay DG yéen ñi nga xam ne yéen ay ministre yéen ñi nga xam ne yéen ay PCA. Mm-hmm. mënuma leen wax ne élection yu ñu jëm ka ca perte jàppal ne dinaa la dàq fa nga nekk. et encore une fois ma koy wax jàpp naa ne amuñu woon un président de la république ab chef de gang la ñu amoon. ah dina compliqué nag pour nit yi gëm ko xam nga mm-hmm. euh, bu nekkee ne ab président dañ ko tabb bi muy ñëw mu ne yorul. Mm-hmm. ñu fal ko mu ne ñu am na patrimoine huit milliards. boobu rek le sénégalais yi japp né ne ki ñu fal ni fan la jëlee 8 milliards mune Abdoulaye Wade moo ko may et le même Abdoulaye Wade yëkëti kaddu né Macky Sall durant bi nga xamné mom la fi nekk boobu ak tay musuma ko ko may. ñi wax 8 milliards Taïwan. fofu rek dans un état de droit loolu jëngali Macky Sall def. bu nekkon États-Unis du continuer manam wala fi dañ ne lu feeñ sey bu ba na sa ga des ko fayul manam li ngeen gis yépp si nguuru Macky Sall et sincèrement lan la fi nekkoon ministre lu mu fi nekkoon DG lu mu fi nekkoon premier ministre lu mu fi nekkoon euh, président assemblée nationale. lu mu fi nekkoon maire. est-ce que Macky Sall durant bi nga xam ne dénk nañ ko si nguuru Abdoulaye Wade ndax war na mën a am lu toll si 8 milliards. c'est impossible. mais tey bu nekk ni président déclaré wul ne am na benn euh, entreprise boo am na am na am na benn maanaam ji nga bu ñu tolloon foofu rek sincèrement. Mhm. foofu rek maanaam lii feeñ ñii yëpp waru leen bett yemuma foofu le même président de la république moo taxoon ne leen bépp DG wala képp koo xam ne ñàkk nga maanaam. jour boobu la tam waaw jour boobu la tàmbali ne ñi nga xam ne moo di ay DG am sàcc leen. Ah du neex a dégg. <laughs> beneen bi aussi.

dafay jël auto poste yi dem campagne ji ko fi fi nga xamné mo nek nekk Thiès loolu amna fi wala amu fi dul lo xamné ne mënuñu ko gis et le même président de la république bo leen xolé li fassiyene xew ndax durant bi nga xamné mo fi nek nangu na kenn ci ñom def li nga xamné modi déclaration walum patrimoine am amul ndax ndaxte gis ngeen fi Badio Camara si yoonum Sénégal lu mu wax buñ la dénkee te sa budget mat lu mat si 1 milliard da nga war a def li nga xam ne mooy sa déclaration patrimoine mhm. Nafi Ngom Keïta moo yëkkatee kàddu ne ki nga xam ne moo di Badio Camara euh, président conseil constitutionnel dafa war a def li nga xam ne moo di déclaration patrimoine am mhm. yemu fa le même président de la république si boppam moo ne Nafi Ngom kayta bàyyil ki nga xam ne moo di Badio Camara mhm. du neex a dégg boobu ak tey fi ñu jóge ba fi nga xam ne foofu la ñu yegg si mais Macky Sall moo nañu woon jàppal ne réew mi du ma nangu kenn ku luubal alalu askan wi rapport of nag dafa jàpp ki nga xam ne moo di Cheikh Omar Anne kii kat dañoo jàpp ne dafa luubal. si wàllum népotisme si wàllum clientélisme am maanaam clientélisme mais beneen bi aussi mooy. jamono bi muy nekk ci COUD. bi muy nekk atum 2014. mille sa 2015 hmm. fi nga xam ne mooy ci COUD rapport of nag dafa jàpp Cheikh Omar Anne. Hmm. mën nañ see dem chiffre par chiffre la naka la naka la naka la fa jëlee mais rapport boobu dafa am lu mu wax. Hmm. dana kii nga xam ne moo di Cheikh Omar Anne waratuñu koo tabb. fépp foo xam ne état mooy joxe. mais après ñu promouvoir ko def ko ministre. maanaam Macky Sall moom mooy récompenser ñi nga xam ne ñooy sàcc. rapport bi lu mu wax kii waratuñ koo fal mais leen lañ si set na fi ngom kayta lañ daax Papa Alé Niang moo ci bind livre moom la ñu tëj li nga xam ne moo di maam moom la ñu daan wàllum diffamation mm-hmm. Cheikh Omar Anne dañ ko récompensé bu ñu demee si réew ba ngeen am njiit boo xam ne dafa am kenn koo xam ne dafa sàcc ay maanaam parrainage nit et le même président de la république recevoir ko fi nga xam ne moo ca pale ba mm-hmm. moo tax encore une fois ma ne leen amuñu ab président ab chef de gang la ñu amoon du neex a dégg ndaxte mën nañ see ñëw benn par benn tey suba li nar a xew imaginel ñu ne la ca deer fi ñu waroon jox xale yi deux cent mille deux cent mille la ñu bind mais dafa doon dafa doon dem ca deux millions mhm. mais surfacturation yi nga xam ne am na am na amul na man damaa jàpp ne suba ça fait l'occasion ay nit bu ñu leen dénkee au contraire mhm. ñoo ngi naan projet am na wala projet amul man li ma wax mooy suba bu ñu waxee ba pare. Mhm. li ñu war a posé mooy askan wi ñii nan la ñu mën a def ci 6 mois yi ba téye ba nga xam ni les fonctionnaires ñoo ngi fayeeku mhm. ba nga xam ne étudiants yi ñoo ngi jot seeni i ba nga xam ne tey grève amul si wàllum santé. ba nga xam ne mhm. tey réew mi moo ngi war a moo ngi stable man damaa jàpp ne askan wi question yooyu la ñu waroon euh, posé fi nga xam ne foofu la ñu toll. mais jàpp naa ne suba bu ñu génnee li war a génn suba xam naa ne yegg ca mais da ciy doon li nga xam ne mooy. xam nga benn exemple rek bu ñu ko jëlee. ñu ne la te temps yi mu doon ko woon information bu ñu génne même ma jàmbale keneen wax si ñu ne Ousmane Sonko si 6 mois. Mhm. dépassé na dépensé na fi nga xam ne moo ci primature 12 milliards. Mhm. et tel n'est pas le cas. bi Amadou Ba jugee foofu kan moo nekkaat le ministre de l' intérieur Sidiki Kaba. Mhm. suma ma juumul si trois trois trois mois xam ngeen Sidiki Kaba ñaata la dépensé 8 milliards si 6 mois Ousmane Sonko dépasse, si li nga xam ne 3 3 milliards. Mhm. est-ce que tey Sidiki Kaba nan la yore woon li nga xam ne moo di mam réew mi maam nga xamne ne moo ngi foofu. Mhm. am na ca koo xam ne moo yoroon oto bi. fonction bi mam góor ngoom yor jamono gi mom bi ko demander dene delloowul auto bi ndax te Amadou Ba moko ko joxone mais suba dinañ xam surfacturation bi suba dinañ xam népotisme bi nga xamne ne na. mais suba dinañ xam dinañ xam dina xam ñi nga xam ne noonu la ñu yore woon li nga xam ne moo di nguur yi moo tax ma jàpp ne peut-être askan wi li tax ñu voteel les 54 pour cent moo di dañoo bëgg jub jubal jubanti et ma gëm ne ñii ñëw suba li ñu war a njëkk def mooy leeral askan wi jàpp naa ne nag au delà si loolu bu ñu leeralee askan wi dina am leneen lu si juddu Abdou Khadir. Mm-hmm. mooy élection yi jëm.

emploi fictif yi mu génnee ñu dem ca LONASE la Diop nii la ko yore woon ñu dem ca kuddu lii la ko yore woon ministère nangam nii la ko yore woon fi nga xam ne appel téléphonique waroon nañ fa dépenser un milliard. Hmm. def nañ fa trois milliards nàngam ak nàngam suba nag léegi sénégalais ñoo naan est-ce que ñii biñ leen dénkee ci 12 ans ay rapport rek lañ doon dégg. Hmm. te booba tey ñuy taf suñuy nopp mais suba ñoom ñi nga xam ne ñoo ca ne. Yankhoba Diémé la ministre bu génnee la muy wax ci wàllum emploi nii la fa demee nii la fa demee ndax boobaa askan wi nag dañu naan est sax taxul ne ñii dañoo war a gën a may ñu fi nekk doole ca assemblée nationale ngir ñii ñu war a mën a lijjanti seen i mbir ndaxte jàpp naa ne loo am solo la ñu def mais rax na politique boo xam ne dañuy ne mm-hmm. dañuy wan 12 wu Macky Sall moom ak ñamu àndaloon li li fi xew. ndax té ñaata rapport fi xew et le même Macky Sall mo de mo ci teg euh, euh, euh, concam mhm. ñaata rapport Cour des comptes mo fi génn Mansour Faye rakku Macky Sall canal Suez Suez ndox ba nam ca demee Covid 19 nam ca démé transport ba nam ca démé alun Sall ñu koy tudd benen bi tay imaginel walum gaz ak pétrole nam naam guñu mais leb bi nga xamné leb gum nañ ko wut saet koppar googee fan la jaar les arme yi nga xam ne moom jënd fan la jaar palais li nga fan la jaar en fait pour wax la man les sénégalais dañuy génn ci waa APR ak mais par rapport ak euh, dafa am benn point muy euh, les mhm. li li li euh, les mhm. ak mhm. autour de <coughs> pardon 800 milliards mais là, en fait euh, bi xam nga bu fekkee ne dañu nekk ci exploration ba ci exploitation am na lu ñuy wax une joinventure. Mhm. venture mooy une association d'entreprise boo xam ne ñooy sóobu ci exploration bi c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. Mhm. ba ci exploitation bi maintenant ci biir loolu ku ci ne da ngay contribuer puisque Petrosen mi nga xam ne représentant l'État du Sénégal moom amul woon les moyens de contribuer au même niveau que les majors pétrolières yi nga c'est des entreprises à milliards de mm-hmm. dollars parce que quand on voit le pétrole on parle de milliards ah, c'est à c'est à coup de dollars mm-hmm. donc ils étaient disposés BP ak euh, Woodside ils étaient disposés à abal ki nga xamné moy mooy Petrosen mm-hmm. bu ko défé lañ koy abal bu boba mom buñu tambalé produire muy le cost oil par rapport ak partage de production avec loolu loolu mu demee bu tiré ci lay tirer pour faire ay borom. Hmm. tu vois donc loolu non nous nekk loo processus normal hmm. peut-être que que ko bañ classé classer sax ci scandale hmm. mais par rapport à ni que ko présenté ak lañ ci un da processus normal parce que tant que nous avons des partenaires yi nga autour d'un projet mën nañu appuyante. bu mhm. ko defee après ñu solder les comptes. Mhm. bu boobaa war na a nekk. Mhm. sinon à part ça par rapport à au à tous les autres sujets les points yi nga xam ne soulevé mais effectivement il y a de quoi s'interroger. Euh, et ndax jàpp nga ne li xew.

parce que bu né euh, parce que euh, ñi nga xamné ñoy nguur bu bees gi dañu dam fofu ba bobu ba -hmm. bo xolé critiques yi bari na lool wayé démarche bu méthodique la ñu -hmm. taxé nañ leen fi de d'incompétent. Mhm. wax nañ leen fi euh, ni ñi yoré réew ñom mënuñu ko. Mhm. parce que amuñu capacité yi. et pourtant FMI constaté na ni ils ont réussi à stabiliser la situation économique. Mm. malgré l'état de désastre bi nga le premier ministre constaté que ba communiquer demain. Mm-hmm. mais avec les mesures c'est des mesures structurelles mettre en œuvre mais permettre de stabiliser la situation économique. Mm-hmm. Euh, par rapport que euh, le timing pourquoi defuñu avant peut-être ñu ngi nek sur le travail comme nous avons communiqué bu euh, mais pourquoi avant l'élection, les élections législatives Maintenant, après les élections législatives, mais parce que c'est le bon moment politique pour communiquer sur ça. Parce qu'en vérité, le nouveau régime de out une majorité pour mettre en œuvre son projet. Mhm. Euh, parce qu'on parle maintenant d'agenda national de transformation. C'est ça le nouveau référentiel mhm. pour le projet référentiel avec le régime du de l'ancien président Macky Sall. Mhm. c'était le PSE. Mhm. mais aujourd'hui on a un agenda de un agenda national de transformation. Mhm. Euh, Sénégal 2050. donc effectivement li nga mais mais mais mais il est logique que dina am une incidence sur le choix des Sénégalais lors des prochaines législatives. maintenant il y a un dispositif que xam mettre en place on parle de pôle judiciaire financier mm-hmm. euh, mettre euh, euh, installé les différents magistrats mm-hmm. am Amna ay enquêtes yo xamné tambalé ko dans le cadre de la reddition des comptes mm-hmm. euh, amna ay auditions yo xamné tambalé de nañ ko barki comptes. mais ça veut dire tout simplement que lañu wara wax bu subaa mais effectivement amna yu ci bëri yo de buñ ci mais yon dina ci am wàll sénégalais yi dañu am une vision beaucoup plus claire par rapport à la gouvernance de l'ancien régime ci li nga xamné mom moy mooy askan wi. Mhm. ci pôle judiciaire financier bobé oui euh, si lañ ci dem moment bi ñu tok di wax ak yow. xam nga mhm. né la Diop tek nañ ko ci loxo. oui Abdoulaye Sylla bu Ecotra ñoo ngi ko cee déglu. Mhm. amna ci ñeneen ño xamné aussi ñom ñoñi won nañ leen déglu euh, fi ñu toll nii. dañ ko njëkkee ci li nga xamné mom la l'observateur wax. oui aussi ñu dégg Libération wax ko yor yor ñeu confirmer ko ne si réew mi di Sénégal mën nañ jàpp ne lu toll si 2700 kg ci cent euh, kilogrammes si or mu